dal leen ak jàmm ci AGT news chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor dara bañ leen a raw. AGT news. mbokk internet yi AGT news dal leen ak jàmm abonné leen ci suñu chaîne. saa su na ngeen di am ay xibaar ak jàngat uh, yu wér te wóor scandale bu mag lañ gisati muy daal di circuler fépp ñu koy waxtaanee ci Sénégal mooy ki nga xam ni moo di Cheikh Bakhoum nekk ancien DG bu Sen'Eau ñu ko doon woowee ADIE moom nag dafa am ab cambriolage boo xam ne daal di nay am ci këram ñu sàcc fa ay koppar yu bëree bëri yu toll ci un milliard de francs CFA maanaam benn milliard la ñu jëlee ca kër kookee nga xam ni moo di Cheikh Bakhoum ñëpp ràññee ko lool fii ci Sénégal xibaar yi nga xam ne nag daal nañ koy am itam moom Cheikh Bakhoum jamono ji mbir mi di am nekkul woon ci diwaanub Ndakaaru Njaay dafa voyagé woon waaye nag mbir mi sax mi ngi ko doon jéem a jiñ ki nga xam ni moo di ab gardien wam di ko jéem a menacé ngir xool ba xam moom moomee moo daal di def jëf ju ni mel la mbir mi nag mi ngi woy ba tey ab enquête dañ ko ci dal di tijji waaye nag moom Cheikh Bakhoum mile bokk na ci ñi nga xam ni ay politiciens lañ bokk ci régime bu président Macky Sall am koppar yu bëree bëri yoo xam ni seen ay tur la daal di nekk lii nag du lu bees ndax gisoon nañ ko fi ak Farba Ngom xaalis bu bëree bëri daal di woon réer ci këram ñu ne woon daa am ku ko daal di sàcc te loolu ay million la toll woon na ci lu ëpp huit cent nekk nag loo xam ni lu doy waar la ci am réew bu mel ni Sénégal nit ñaa ngi jaaxle mu ay jafe-jafey faju lekk ak naan fay seeni ay facture ñuy gis ay autorité fii ci senegal bokk ci régime président Macky Sall am ay koppar yuy réer seen ay kër te du nekk koppar yu tuuti valeur un milliard réer ci ab kër te ñëpp xam un milliard li mu mën a faj ci ay soxla war a xam ni scandale yi ñuy wax saa su nekk ci régime bile fay woy di yokk waaye du mës di wàññeeku lii nag gàcce dëgg la ci régime boo xam ni dañ laa dénk ab nguur na la jéemal defar en sorte que sénégalais yi nekk ci jàmm ay bés bu yàlla sàkk ñuy gis ay nit ñu faree ak président Macky Sall yor koppar yu bëree bëri ñu di dégg ci ay njaaxum yoo xam ni bokk na ci li tax sénégalais yi gën a mere président Macky Sall ndax ñu ko jege léeg-léeg di def ay erreur yoo xam ne kenn mënu koo comprendre naka lañ mën a jëlee un milliard de francs CFA di ko denc ci ab kër xanaa banque yi nekkatuñu fi la koppar googu daf koo lewul doom ba mu koy denc ci këram ana lan moo ko fi jar nañu jéem a xool naka la def ba soulager souffrance bi sénégalais yi di dund bés bu yàlla sàkk loolu moo ëpp njëriñ ñuy def loo xam ni sénégalais yi dañ koy yëg seen xol di gën a jeex ba tax ñuy gën di préparer wu ngir atum 2024 sanction bu méttee métti daal di tegu ci kaw ñi nga xam ne actuellement ñooy incarné suñu ab nguur amul kenn koo xam ni mën ngaa rëcc bu atum 2024 weesoo bañ changer le régime bi nga xam ne moo fi daal di nekk ñi nga xam ne ñëpp dégg nañ leen ci mbir yi sénégalais yi dinañ exiger à ce que ñu topp leen nangu koppar yi ñu yor bu dee ñu ko xaalisu Sénégal la delloo ko ci suñu ay kees jéem a xool nu ñuy suqalee suñu am réew te nag soxla nañ ab enquête daal di am ci mbir mi mu leer nañ mu bañ a mel ni Farba Ngom la nga xam responsable buñ mën a nii ne lépp moom moo ko dal di war la te ki nga xam ne mooy borom xaalis bi itam kookee dañ ko war a laaj fan la jëlee yooyu la koppar nan la ko amee ak lan moo waral mu dencoon ko ci këram bañ koo yóbbu ci banque yi nga xam ne Ousmane Sonko waxoon na ko ca atum falaatee président Macky Sall ci bopp nguur gi mu dem ci assemblée nationale ne les sénégalais vont souffrir parce que vous êtes incompétents loolee ñu ngi koy gis ñu ngi koy dund liste électorale yi ngir jëlee fi le régime en place ndax mënuñu tële nañ waaye itam dañuy teg sénégalais yi jafe-jafe yoo xam ne ak naqaru xol yu dul jeex yu kenn mënut a supporter te lenn kese moo koy daal di faj mooy une population déterminée à aller vers le changement bu ñu amul loolu nañu toog te xam ne du ñu jug mukk ci ay jafe-jafe te dañuy nekk un peuple opprimé ndax nag bu dee dañu laa noot yow képp yaa si mën a génnee sa bopp te suñu ay maam xeex nañ ba ñu am suñu indépendance kon nag buumu njaameel mënuñu ko dundaat ci suñu biir dëkk te ñi ñu koy takkal itam nekk suñu ay concitoyens abonné leen ci AGT News ngir xibaar ak jàngat dara bañ leen cee raw AGT News